fii ci diwaan bu Touba lu jëm ci wàllu waajtaayu tabaski bi lii di soble ak pomme de terre nekk lu mënta ñàkk ci bis bii di bisu tabaski yi fi nga xam ne moo di ci marché Ocass fi nga xam ne fi la ñu jëm ci wàllum soble si jamono ji jaaykatu soble yi ñi nga xam le ne ngir nga am soble wala pomme de terre fii ci diwaan bi bu dee saako pomme de terre faaw da nga lu toll ci junni ak téeméer ngir am saako pomme bu dee nag soble bi jamono bi fii ci diwaan bu Touba danga nga génnee lu toll ci ñaari junni ngir am saako soble. moom jamono ji moom saay moom mu ngi derule bu baax a baax a baax moom mu ngi déroulé moom. dara du fi manqué moom. kilo bi mu ngi mu ngi entre trois cent soixante quinze et trois cent cinquante moom lañ koy jaay fii fi ñu joge moom dafa xawoon a tombé ci ak tabaski boo xam ne maanaam dafa nekk ñaari événement yoo xam ne dafa tombel moo tax tamit euh, dañu war a sant yàlla nag xam ne yàlla daal moo mooñ ko teg ñun ñëpp rek waaw mais tabaski bi moom maanaam soobee yàlla moom soble bi daal du manqué en tout cas. bagage yi moom am nañ yaakaar ren du manqué comme ni mu doon manqué par rapport ak jamono yi jàll ko ndaxte li fi jàll moo fi nekk quoi ni ko war a jëlee gars yi instant bi xaalis amul li ñu waroon liggéey daanaka genn wàll gi liggéeyuñ ko soble yi desoon ci àll bi genn wàll gi jeexul aussi soble nawet bi tim ñor na te xaalis amul. soble bi instant bi de moom ñu ngi jaay par kilo 400 quoi. waaw ah, bu dee 25 kilos bi 10 000 lay jar. pomme de terre tey mu ngi si 8000 francs lay jar tey jii Touba. temps bi moom soble local bi moo am quoi. façon soble bu ne nag am na am na somsa am na india bi am na kiriol bi am na soble bu weex. moom am nañu yaakaar ne moom du manqué. ni nga ko gisee moom yaakaar naa dal na xel daal. waaw ndax instant bi moom ñu bëri ñu ngi doon séntu pour seeraay bi waaye yaakaar naa mën naa ñàkk a seer. ndax instant bi ñu ngi jaay presque kilo soble 400 wala 375. jàpp ne na moom dana baax dana dana mën a diir événement bi daal lu jëm nag ci wàllum Covid 19 bi ak tabaski bi ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi gis nañu ci seen bopp lool li ko waral moo di ne soble bi nga xam moom la daan importé jamono ji bariwul dara ba tax ñuy xam ne ne li ci wàllum soble mbay bi am na yaakaar ne ren ji dinañ ci gis seen bopp. moom wax dëgg yàlla local bi moo ñu arrangé quoi. ndax liñ ci mën a am mën nañ ko am ci importé bi quoi ndax suñ doole àggagul fi ñu dëgg yàlla local bi moo ñu arrangé daal moom wax dëgg yàlla suñu ci état bi mën a jàpp lépp bañ bañ soble toit bi gaaw ñëw itam ndax instant bi yaakaar naa ni ngi ni daaw li ñu daan am ci soble amuñ gen wàll gi te aussi bagage baa ngi nii demagul quoi bi parce que moom bi doxee moom ku ne xam na ko. lu ci man di am fii ci diwaan bu Touba ñuy waajal lu jëm ci wàllum tabaski bii soble ak pomme de terre fii ci diwaan bii nekk na lu fi seeragun lool.